si at euh, cybercriminalité mu daal di ki nga xam nekk moo di Kader Dia bu Sen TV mm-hmm. euh, si kàddu yi nga xam ni itam yëkki woon na ko que nii Euh, suñu force de l'ordre de dañ leen euh, pour ñu di exactement. Mhm. Euh, alors yooyu nag ko expliquer devant les enquêteurs de la division des devant les enquêteurs de la cybercriminalité exactement. Mhm. ban nga justement par rapport ak la convocation bu Kader émission grande gueule mhm. bon sëñ Fallou xam nga Kader. Mm. ku nekk xam na Euh, foog naa bu ñu demee sax ba Grande Gueule ñu tuddee ko Kër Dof yi moom moo tax. moom Kader. tax euh, donc Kader bu waxee lu lu tool noonu. Hmm. <laughs> foog naa am na fu mu ko teg. waaw parce que nag day baax xam nga lu toll ni euh, armée gendarmerie et autres suñu corps yooyu nga xam ni gàcce ngaa laama ñoom fi nga xamee seen njëriñ mooy ba dëkk bi tàngee ba tàng man dama amoon moment boobu sama jabar mu doon accoucher. mais insécurité ba ci dëkk bi. Hmm. taxna na kenn mënul mais bama à zéro heure gis leen taxaway bi ñu ci dëkk bi ci la xamni certes je de l'opposition, opposition doon appelé le président Ousmane Sonko même dans l'opposition, mais ñom lu leen way fay jeex nañ lu ko ëpp. donc ñu toll nonu di nekk ci geej ak ak ni ak ni di sur terre di def ay nekk dans les airs def ay patrouilles du da ngay toog ak di wax lu la neex man loolu laa jàpp et que Kader euh, foog naa irresponsable aussi weesuwul def ni li ñuy wax yëpp ci ay xale yoo xam ne dañuy dem ci gaal gi ay bakkan di xoot yow jéemoon ay piste de solution ngay miy def ni ko borom télé bi di defee mooy sos ak ridicule hmm. waaw pour man nag euh, naax bu bu bu mag bi bu ndaw bi lu mu wax ci moom la ko déggee sauf day am loo xam ne naax bu naax bu mag bi du ko sañ a wax ndax xam na ne bu ko waxee yoon na ko ndiggam day yónnee naax bu ndaw bi donc yooyu Kader wax ñun ñëpp xam nañ fi mu jógee mais na fexe ba na ko indil ay preuve parce que nag ay caaxaan moom jeex na si xew mi. Hmm. dëkk bi ñu nekk toog ak wax lu la neex sos dem loolu moom jeex na fi donc li muy wax foog naa ni bu yeggee incha allah cybercriminalité lañ ko waxoon ma dig dina dina apporter ay preuves. lan mooy seen problème ak Bougane exactement parce que de plus en plus. Hmm. day constituer benn patate chute si yéen. Hmm. saa su leen génnee mu génn. Euh, démonter seen ay euh, euh, propos di top seen ay tank di leen tibb foo leen exactement. Mhm. peut-être euh, aujourd'hui euh, son groupe peut-être dérange. Mhm. ak ses hommes peut-être. bon vous savez <laughs> c'était même pas pour répondre à Bougane parce que Bougane aussi li muy def ni si lu mu yag la. parce que da nga né lu naaru bu wax bi. ah mais bien sûr lolu mom dama koy dama moo tax la moy sa problème ak Bougane. waaw moo tax ma la moo tax la Bougane mm, ko Bougane yimi def ni yu mu yag la. xam nga Bougane Bougane defon na fi ay tibb tank ak maquette lu nekk té yëngalul Macky donc ki nga xam mo fi débaloon ne jëlé fi Macky Sall tok bu bugaan foogee ni mën na ko yëngal mi ngi nax bopam et que euh, man arrête bi ma doon wax sax c'était beaucoup plus ak ñi nga xam ñi ngi liggé ak bugaan au niveau de la Sen TV mm. parce que ñun aussi ci dëkk bi lañ dëkk nous avons des informations amna na lu ñu xam bugaan projet am nekkul sax bon pour sonal opposition bi wala dara ñom ñu fay liggé en tout cas man li ma leen digal mooy ku ci am contrat na ko xolaat ba xam dëgër na ku ci amul contrat na nga ko wut loolu maa koy wax parce que coow lu muy wut Sen TV yëpp ñun xam nañ lu ko tax a jóg. lu ko tax a jóg c'est un homme d'affaires il veut juste vendre la télé te ci yooyu la nekk nous connaissons des hommes d'affaires yoo xam ne Bougane mi ngi marchandé ak ñoom Sen TV et que bu àntoo foog naa ni li mu bëgg mooy ubbi beneen chaîne de télé donc ça sert à rien mu yàq réputation wu télé bi wala mu def ko leneen. en tout hmm. cas donc ñi fa nekk nañ jéem a assurer seen ay dex ya moo gën ñu koy topp ci coow yi nga xam ne ci la nekk donc Sen TV instant dañ donc bëgg a jaayee. en tout cas euh, les may wax nii euh, man mom du ma nous connaissons en tout cas des des hommes d'affaires yoo xam ne mi ngi marchandé ak ñoom la Sen TV foofu la ci mais quel est le rapport Mohamed avec ses attaques contre Ousmane Sonko peut-être dafa jàpp ni euh, sa licence pourrait toutefois être retirée voilà. bon waaw mais Bougane moom dafa jàpp ni moom Ousmane ay nawle lañ. ah nawleem parce que ñu avons ñoo débuté là. ñoo finalement, finalement, waaw fii nag fi débuté doo bëri te tey ku nekk am nga foo yegg dama ne Bougane dafa jàpp ni le président Ousmane Sonko nawleem la te ñoom ñaar xam nga lu leen boole ñoom ñaar mooy Bougane dafa yor chaîne de télé di wax Ousmane sonk président Ousmane Sonko yor parti dem di wax mais si kanamu Sénégalais yi Bougane ak Ousmane Sonko jaxul coow ñoom ñaar kàddu rek moo boole kii dafa yor teleem heure bu xëyee di wax kii di jàkkaarloog Sénégalais yi di wax ak ñoom bokkuñu Bougane wax naa ko léegi c'est un homme d'affaires Bougane c'est-à-dire amalu ko solo bu bëri amalu ko njëriñ lu bëri c'est un homme d'affaires bu dee dafa bëgg a yokk waaw télé bi wala dafa bëgg a indi buzz médiatique au niveau de la Sen TV pour mën a gën a yokk laa télé bi. Hmm. jaxu ko parce que mi ngi daaneel pexiwu njëgu télé bi. Euh, li ma waxoon sang la wax je conseille juste à ces travailleurs ñi mi liggéeyal ñu xoolaat sen contrat yi ñu fa am balaa muy trop tard.

Euh, télé yi di wàññi seen ay personnel mhm. am ngeen si part de responsabilité par rapport aujourd'hui ak li nga xam ne que moo di tolluwaay presse bi fii Sénégal waaw moom naa presse Sénégal dafa évoluer mais régressé wul xam nga non dafa régressé jamono ji ñu nekk si presse bi loolu leen wax ñu ñun ñun ñun. gis nañu gis nañu point de presse kay non xam nga non sëñ Fallou ah, ah, convention yi téye nañ ko sëñ Fallou concrètement sëñ Fallou ah. <laughs> je veux dire une chose hmm. xam nga lan moo lan moo am ba agence plus yi. xamal ah. xamal lan moo am baam. pour être vrai. être à la presse bi anamu. xamal lan moo am baam. laaj ngeen leen de. Euh, ñi nga xam ne ñooy président de groupe. yenn hmm. groupe de presse yi. nga xam ne daaw ñu fay impôt daaw ñu fay taxe daaw ñu fay dara te bu subvention ñooy ñu ëppale si ñooñu ñooy génn di agité wu gis nañ fi point de presse boo xam ne ñeent nit dañ fa gis boo xam ne ki nga xam ne moo woon def point bi di laaj soxna si naan ko ana ana ñu mu naan ko ñëwaguñ donc fii. Euh, ñi ñiy liggéey en tout cas si presse ñu mel ni yow xam naa ne yaa ngi amal sa liggéey ni mu waxee mais ñi mu wax mooy président groupe de presse te nag gis nga milieu presse af ay affaire la mais homme d'affaires mën nañ si dugg je suis mm, d'accord mm. mais quand même dañ ko wax xool lu ñu koy defee xam nga fayal impôt rek nga ne damay dàq c'est quoi le problème euh, subvention yi ñuy wax et à la presse et autre mais bu jotee dañ koy defaraat ba mu gën a jaax yoon parce que yow Alaaji Fall li ma leer mooy ku la tëjoon si néeg laaj la ba xam ne ñoo joxe et à la presse baax na nga ne baaxul mm. parce que gis nañ fi ñoo xam ne ay cabine lañ yor di am loo xam ne ñi ñi am groupe de presse amuñu ko loolu c'est pas normal clientélisme politique la xawma lu mu doon donc aide la presse foog ñu defaat ko ba mu jaax yoon ñu xool journaliste ak maison de presse yi ko yellool ñu jox leen ko ñu si des ñu def ay effort pour mën a yegg lu ñuy jotee lu conséquent. mais nous commencé ko en fait ngeen commencé waat defaraat du waat parce que un presse bi mi ngi traversé. des mm-hmm. difficultés certes li de gloire. Mm-hmm. mais fii mënut a quoi compulsion génne leen liste bi. Mm-hmm. gis seen faay donc là, la si xaar concrètement. mais concrètement li urgence concrètement li ñu si xaar mooy euh, organiser waat ko. Mm. waxtaan nous ñi nga les vrais acteurs de la presse mais def sañ ci wax def sañ fallu te loolu foog naa ni mi ngi en cours alors c'est clair exactement mi ngi noonu par rapport ak wàllu wu mel euh, maintenant arrivons li nga xam nekk moo di élection législative yi ak tolluwaay yi waaye itam ak enjeu yi exactement